asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq te defal leen ko yaakaar naa ni mbokk yi ñu ngi doon waxtaanee lu jëm ci wàllu ramm ramm nag ku ne xam na ni bunt la boo xamante ne ci sharia bu jara jàngat la ndax dafa bari ay doomu aadama yoo xamante ne dañoo réer ci bunt bii te lënt lënt bi leen réeral moo daloon ña doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi maanaa ñi réer ci buntu ràmm bokk na ci lënt-lënt yi leen réeral ay lënt-lënt yoo xam ne alxuraan daj woon na ko ca ña doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tekkiwul ne nag ku réer ci buntu ràmm rek yaa ak ñooña yéen a yem waaye nag lënt-lënt bi moom benn la lënt-lënt bi boobu mooy ban mooy jàpp ne nit ki mën naa amuk ràmm fekk mi ngi jël cëru yàlla di ko jox leneen wala mu koy jox keneen ba pare mën a am rammuk kookee fa yàlla subhanahu wa taala wala amuk rammuk loole fa yàlla subhanahu wa taala gii lënt-lënt moom la ñi lànkaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon di jaamu leneen lu dul yàlla wala ñuy jël ay xeeti jaamu yàlla di ko jox leneen lu dul yàlla te بولن وخين ين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا نلن دي نلن دي ا إيه، جامو واي دارا تاخول ني لن دي جامو لودول ني جيغل ني يالنا ناخ نيوم امنا نيو تير فا يالنا من نان لن فا رام سي بنين لاي مو غن كو ليرال مو ني ويعبدون من دون الله ما لا ما لا ينفعهم ولا يضرهم او ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نيوم dañuy jël xeeti jaamu yàlla di ko jox leneen lu dul yàlla te boo leen waxee ne leen lii bokkaale la ñu ne laa ñii kat am nañu cër fa yàlla danañ ñu ràmm ca kanamu borom bi tabaraka wa taala kon bii lënt-lënt moom la gaa yooyee amoon te am nañu ko am ba tey jii ma ashbaha laylata bil bariha euh, loolu nag incha allah danañ ci def ay leeral yoo xamante ne euh, Euh, tey ci guddi gi wala wala bu subaa ndax dañoo ne ci aw yoon di jéggalu ci ñàkk a leeruk euh, enregistrement bi bu dee am na salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi euh, ñaareel bi mooy rammu boo demee ci alquran ak sunna da ngay yëg ne am na ay texte yu tukkee ci yàlla akub yonantam léeg-léeg muy dàq rammu. nga gis ci biir alxuraan ak sunna yeneen text yoo xamante ne day saxal ramm nga gis ne ramm gi alxuraan ak sunna di dàq bokkul ak ramm gi alxuraan ak sunna di saxal ramm gi alxuraan ak sunna di dàq mooy ramm gi nga xam ne mooy ga ña daan bokkaale yàlla di saxal mooy nit ki mën naa nekk ci jaamu leneen lu dul yàlla ba pare ñu ramm ko ñaareel bi mooy kii rammu mën naa nekk aw xeer bi maanaam mën naa nekk koo xam ne alxuraan ak sunna saxalul ne ku war a ramm la ñaareel bi ñoom dañ daan saxal ramm goo xam ne kii rammu laajul muy am ndigalal yàlla laajul muy am ndigalal yàlla kon loolu googu ramm moom alxuraan ak sunna da koo dàq moo tax nga dem ci texte yi ci alxuraan ak sunna di fa fekk muy daq ak mu léeg-léeg da koy daq dàq goo xam ne dañ koo boyal yàlla subhaanahu wa taala nee na yaa ayyuha alladina aamanu anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya yawmun laa bayun fiihi wala xullatun wala shafaa yéen ñi gëm yàlla joxe leen ci li leen yàlla dénk ci wërsëg ngir yàlla lu bis boo xamante ne bu ñëwee amul jaay ak jënd ca bis boobee amul ak xaritoo ne sa kii sama xarit la woon kon mucc na amulu ko ramm bis boobu amulu ko ramm kon bis booba amulu ko ramm googu alxuraan dafa dàq foofu ak ramm waaye ramm gi mu dàq kon mooy amulu ko ramm goo xam ne gu mel ne gii gaañu yaakaar mooy ramm goo xam ne ki ngay ramm da doon jaamu leneen lu dul yàlla wala kii rammoo yàlla du ko jox ndigal wala ki ñuy ramm wala kii rammoo yàlla gërëmu ko kon ramm googee mooy gi nga xam ne moom la alxuraan daq amma ramm gi nga xamante ne moom la alxuraan saxal nag comme yàlla subhanahu wa taala ne man da alladi yashfau indahu illa bi idni mooy ramm goo xamante ne yàlla mooy jox ndigal ka nga xam ne moo war a ramm ngir mu ramm ñam war a ramm moom miñ jox ndigal dafa nekk ku baax koo xam ne yàlla subhaanahu wa taala gërëm na ko te mooy ku set wecc ci ak bokkaale yàlla gërëm ko bëgg koo teral ca bis boobee jox ko ndigal ngir mu rammoo ngir mu rammu kuñ war a rammu moom mii rammoo kon dañ koy jox ndigal waaye buñ ko joxee ndigal it kami rammu mooy kan mooy ñaareel bi mooy koo xamante ne yàlla subhaanahu wa taala gërëm na ko wala yashfauna li man irtada la alquran wax ñii ramm du ñu mën a ramm kenn ku dul koo xam ne yàlla gërëm na ko ku yàlla gërëm nag mooy kan mooy koo xam ne mucc na ci bokkaale mooy koo xam ne mucc na ci bokkaale lii kenn génnu ci lu dul koo xam ne texte la ci génnee lu dul koo xam ne texte moo la ci génnee nga amuk ramm fekk ne am nga bokkaale goo bokkaale wala goo deewaale kooku kenn képp moom la ci texte génnee mooy Abu Talib te ramm gañ ko rammu moom yal na ñu ci yàlla musal sax te mooy wayefal mbugalum sawara te moom day jàpp ne moo gën a metti mbugal ca sawara yonant ramm ko bañ wayefal mbugalum sawara ci moom muy exception ci ñi nga xam ne fama tanfaahum shafaatu shafiin la yàlla waxoon ne ñooñu ramm du leen jariñ dara ñay ramm duñ leen jariñ dara moom ramm nañ ko wayefal mbugal mi ci moom exception la ci loolu exception la it ci yàlla dàq gum dàq ne duñ wayafal mbugal ci yéefar yi falaa yuxafafu anhumul adab moom exception la ci loolu lan moo indi exception boobu texte bu wér boobu moo tax alquran ak sunna amul contradiction alquran ci biiram amul contradiction yàlla saxal na ci biir alquran ramm dàq ko ci biir alquran ndax dañ naan laaye bi wérul laaye bee moo wér kenn du wax loolu waaye dañ naan ramm gi alquran saxal bokkul ak gim dàq naka noonu ràmm gim dàq ci yéefar yi Abu Talib exception la ci kon loolu lenn la ci laytaay guy gu ñuy dugal ci waxtaan wu am solo wii nga xam ne mooy ràmm nga xam ne kon ga yéefar yi doon yaakaar ak gi alxuraan saxal du benn waaye lënt ga yéefar yi amoon am na ñoo xamante ne dañuy askanoo ci lislaam am nañ lënt gu mel noonu ba tax ñu tarxiis ci bunt bi donte duñ wax ne ku am lënt googu rek génn nga ci diine ji comme niñ ko xamee saa su ne ñi ngi dellu si alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñetteel bi ngir tënk liñ doon wax ci rammu ak rammu gi sharia saxal rammu kon bunt la boo xamante ne ci sharia gi ci sax ci alquran ak sunna faw kon mu ànd ak yii mooy yàlla mooy jox ndigal ki nga xamante ne moo war a rammu ngir mu rammu yàllaa koy jox ndigal day fekk nag muy ku yàlla gërëm di nit ku baax moo xam yonent la moo xam malaaka la moo xam nit ku baax la ñaareel bi du caagante ne buñ joxee ndigal ki war a mooy dem ramm ku ko neex déedéet waaye ñami rammoot ñooña faw yàlla gërëm leen ngërëm loolu mooy lan mooy faw ñu deewaale ak wéetal yàlla yàlla nee na wala yashfauna illa li man irtada ñiy ramm duñ ramm lu dul ku yàlla gërëm te yàlla du gërëm koo xamante ne dafa deewaale ak wéet ak wéetal yàlla kenn génnul ci lii lu dul koo xamante ne texte la ci génnee loolu waxoon nañ ko ku ci texte génnee nag wane ne am na koo xamante ne dees na ko ràmm façon rammu boo xamante ne moom moo ko jagoo ka koy ràmm it moo ko jagoo loolu waxoon nañ ci lu jiitu kon ndigal li faw mu am tayib ñen kañ la leen yàlla di jox ndigal loolu ñoom ñiy ràmm ëllëg yowmal qiyaama tayib fii ci àdduna laata ñuy dem ca bis boobee ndax xamees na ña nga xamante ne ñooy rammoo foofee bunt la boo xamante ne bu jar a xam loolu dafa amug teqale boo nee waaw juum nga boo nee déedéet juum nga dafa amug teqale teqale gi mooy yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na xadis bu wér buy wane ne danañ ramm bu ëllëgee ñaareel bi mooy malaaka yi naka noonu danañ ramm bu ëllëgee naka noonu nit ñu baax ñi danañ ramu bu ëllëgee kon bu nekkee ni nit ab yonant la bu boobaa kooka man ngaa xam fii ci àdduna ne ah ab yonant moom day ramu bu ëllëgee mu des nit ñu baax ñi mooy koo xamante ne da ngay gis ne kii nit ku baax la mi ngi sax ci lu baax seexlu lu bon ndax nit ku baax koo gis da nga naan kii bu ëllëgee dana ramu loolu kenn sañu ko alquran ak sunna wul loolu as salafu saalix it daawuñu defee noonu. nit ñu baax ñi daal danañ ramm bu ëllëgee yowmal qiyaama ku ci yàlla jox ndigal waaye nag kan kan ci nit ñu baax ñii ñu xam ci àdduna ñu gis ne ñoom ñu baax lañ kan kan moo ci ramm kenn ñemewu ci ne diw sàngam bu ëllëgee day ramm te nit ñu baax ñet amul kenn ku ci am sañ-sañu taxaw ne man bu ëllëgee danaa ramm te indi woo firnde ci alxuraan ak sunna luy wane ne yow mii danga ngaa war a ramm bu ëllëgee ndax loolu seetal sa bopp munta weesu ne man bu ëllëgee damay ramm mooy kon man moom ku sell la ku baax la yàlla gërëm na ma bu ëllëgee damay ram man soxlawuma sax ku ma ram waaye man bu ëllëgee ci ñiy ram laay bokk loolu nit sañu ko wax moo tax as kiram yi nga xamante ne ñoo gën ci xeet wi ginnaaw yonent yàlla bi amu ci kenn ku mas a taxaw ne man bu ëllëgee damay ram bal ñoo xamante ne ñu baax ci ñoom nga xam ne ñoo gën kuy nit ku baax ku ñëw seen gannaaw ñoo la gën dañ daan tiit naan ndax yàlla dana nangu seen jëf yem déet nga xam ne ñoom seen bopp sax dañ cee tiit waxuma ne nag ñu taxaw naan danañ ràmm bu ëllëgee yowmal qiyaama loolu xalaatuñ ko woon ñoom kon ana kan moo ñemee ñëw seen gannaaw di xalaat lu mel noonu wala ana jullit ban moo xalaata ñëw seen gannaaw xalaat ne diw sàngam mu bokkul ci saaba yi bu ëllëgee day même kenn ci saaba yi sax sañoo ne diw mii bu ëllëgee dana maram mu ndax loolu amoo ci firndeel lu koy firndeel ci alxuraan ak sunna bu dee nit ñu baax ñi saxaaba yi ñoo gën ñëpp ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi ànd ak loolu sañoo ne saaba sàngam man mii dana maram mu lu tax sañoo ko ndax xamoo ndax yow ci ñiñ war a ramm nga bokkam déet ndax bo ne diw sangam day momay ramu da ngay soxla ñaari mbir ci nit ñu bax ñi nga xamantene ne nit ñu bax ñi ñew gannaaw saaba yi yépp bu fekkente ne da nga ni diw momay ramu da ngay soxla ñaari mbir mbir mu njëkk mi mooy ndax diw mi nga ni momay ramu ndax war boole na ko ci ñi ramu bu ëllëgé amo ci firnde ñaarel bi même bu dee yàlla boole ko na ko ci ñi ramu ndax yow ci ñi ma war a nga bokkam déet ñaar yooyu yëpp amoo ci xam-xam kon loolu basé wu ci wóorul te alquran ak sunna day day day du tegtale loolu moo tax taabi'una yi yaroo ci keppaaru saaba yi amu ci kenn ku masa wax ne saaba sàngam damay ramu xalaatuñ ko ku ko am ku am wax ju mel noonu na ma ko indil bal saaba yi ci seen biir ci àdduna fii musuñoo waxante ne ñi nga xam ne ñoo gën a féete suuf masalan Aboubacar mi ci gën kenn ci saaba yi musul wax ne Abu Bakar moo may ramm bu ëllëgee daawuñu wax sax ne Abu Bakar day ramm moo ne bu dee nit ku baax la de saaba yi ñoo ci gën bu dee ak mbaax dong saaba yi ñoo ko ëppale ñëpp ànd ak loolu ñoom daawuñu wax loolu. moo ne bu fekkente ne nit ñu baax ñi dañuy ramm ñooñu saaba yi ñoo ciy jiitu te teewul daawuñu wax ci bunt boobu ndax lan bunt la boo xam ne kumpa te kumpa gi kañ lay dañ ëllëg yowmal moo tax fii ci àdduna daawuñu ko kafe nii la asalafu saalix meloon waaye buñ demee ba gis aw nit woo xam ne dañuy ñëw seen gannaaw kenn ci ñoom attana taxaw xaaral ma beral ko beneen ojo mi ngi gudd alhamdulilahi rabbil alamin kon ni nga gisee ne taabiuuna yi yaroo ci keppaaru saaba yi kenn daawul wax ne saaba sàngam moomay rammu naka noonu saaba yi ñi gën a féete ndaw ak suuf ci ñoom daawuñu wax saaba yu mag yi ne diw sàngam moo ñuy ramm Aboubacar moo ñuy ramm wala Umar moo ñuy ramm wala Ousmane wala Ali radiyallahu taala anhum ajmain ñoo ñuy ramm kon nga gis ne ñoom buntu boobu dañ koo bàyyi fa ko sharia ba mooy ëllëg yowmal qiyaama lay am fa ndigal la di jibe fa la yàlla di joxe ndigal ñami jox ndigal ngir ñu ramm ci nit ñu baax ñi yonent yi ak nit ñi nga xam ne ñoo leen gën a suufee ci wàllu mbaax yonent yi moom wóor nañu ne yàlla dana leen jox ndigal nit ñu baax ñi yàlla dana leen jox ndigal waaye kan ak la ci yàllay jox ndigal xamuñu ko moo tax ñoom asalafu saalix dañoo noppi woon ci bunt boobu bi ñu demee ba nit ñi tarxiis ci wàllu pas-pas am nit ñu ñemee taxaw di wax loo xam ne saxaabatul kiraam musuñu ko ñemee wax wax ne man damay rammu képp koo xam ne mooma topp topp ëllëg yowmal qiyaama loolu amul kenn ci saaba yi ku ko masa ñemee wax kenn mosu ko wax ku masa gis saaba bu wax lu mel noonu na ma ko indil ndax ñi ñëw seen gannaaw di wax loolu dañoo gën saaba yi wala dañoo am lu saaba yi amut la waaye saaba yi dañoo amoon ak tënku gu ñu tënku woon ci ndigalal yàlla ko yonentam daawuñu ko génn am ku ñemee taxaw ne man bu ëllëgee yowmal qiyaama damay jël sama chaise teg ca buntu jahannam ca buntu sawara toog ca buñ nar a indee kenn ci samay taalibe ma ni leen eh wàññi leen kooku kooku fii du place am dem leen dugal ko aljanna ku ñemee taxaw ñëw gannaaw saaba yi wax lu mel nii. nit koo xam ne day woote ne képp ku ma topp ëllëg yowmal qiyaama danaa la dugal aljanna te kenn du la réglé kenn du la mbugal loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax musu ko wax. yonent bi da daan wax ne ku def nangam ak nangam da nga dugg aljanna te kendula du la mbugal ken du la régler muy ay hadith yu waaye musul wax ne danaa dugal ay nit aljanna man man yonent maa leen di dugal aljanna te ken du leen mbugal ken du leen régler loolu yonent musu ko wax wala ku gis fu yonent masa waxe nga indil ma kon ana lan moo tax ay nit ñemee taxaw di wax loolu kon loolu jullit ñëpp war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax kon daal ram mu nekk na bunt boo xam ne sharia moo ko tër moo wax ni muy doxee ndigal li yàlla di joxe ëllëg yowmal qiyaam lay doon kon kenn sañu a taxaw ne man diw moo may ramm waaye kenn sañu a taxaw ne man bu ëllëgee damay ramm ndax xamu yàlla dana la jox ndigalam déet ko ku ko wax wax nga ci diine yàlla ji loo xam ne xamu ko waaye wax nga ci diine yàlla ji loo xam ne gaa ñu baax ña yaroo ci keppaaru bi mosuñoo wax lu mel noonu walladina yu'tuuna maa aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un yàlla noonu la tagge woon saaba yi ak ku me ku baax ku mel ne ñoom noonu ngay mel mooy da ngay def lu baax li la yàlla digal ba pare ngay tiit naan man ndax yàlla dana ma nangul sama jëfam déet saaba yi nii lañ meloon moo tax yàlla tagg leen tagg wu rëy woowu waaye koo xam ne da ngay def lu baax daal di taxaw setal sa bopp kañ sa bopp daal di ne man waxuma la man ci sama jëmmi bopp waaye man bu ëllëgee ku ma topp dama lay ramm wala nit tok ne kuma gis da ngay dem aljanna wala ku bok ci samay talibé da ngay dugg aljanna kenn du la régler kenn du la mbugal kon yi ay wax la ak i pas-pas ci buntu ràmm yo xamne ne ak sunna da koy dajji dafa wuuteeg alxuraan ak sunna waaye dafa ak jaar-jaaru gañu bax ña yarawon ci kepar yonent bi ak ña leen topp woon ci ak rafetal wallahu aalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok yi juromel bi moy bunt bii nga xam ne mooy buntu ramm dafa bari ci jullit ñi ñoo xam ne dañ leen cee nax niñ leen ci naxe mooy aw nit ñoo ñëw fexe ba gëmloo leen ni bu ngeen ma toppee bu ngeen ma lëggéeyalee bu ngeen tënkoo ci saaw yoon ëllëg yowmal qiyaama maa leen di ramm moo tax nga gis ci jullit ñi ñoo xam ne dab ngërëmal mbindeef moomu nga xamante ne moo leen diguk ràmm jaral na leen ñu wuuteeg ndigalal yàlla subhanahu wa nga xam ne dañuy dem nañ ba ñenn ci jullit ñi ñoo xam ne seen mbir yépp mooy nañ am ngërëmal diw ngir ne moo ñuy ràmm bu ëllëgee yowmal qiyaama mbokk yi loolu wóorul ngir ñaari mbir mbir mu njëkk mi mooy firnde tukkeewul ci alxuraan ak sunna ne waajooju dafa war a bokk ci ñi ramm wala bu dee bokk na ci yet ñoom da leen di ramm ñaar yooyu benn saxu ci alxuraan neewul kooku day ramm kon moom buy dige na dige loo xam ne mu ngi ci loxoom qul lillahi shafaatu jamia léppi ramm yàllaa ko moom kon kum jox ndigal rek moo koy moo koy def mu terale ko ko te xamoo ndax yàlla jox na ko kookoom déet bal benn firnde firnde firndeelul ne yàlla jox na ko comme neen <clears throat> ñaareel bi mooy firnde loolu amul ne moom ci ñooñu la bokk bu ko ko joxoon it xamoo ndax yow ci ci ñooñu ñi mi koy defal ñi mu koy defal ca ngay bokkam déet kon firnde saxul ci ñaar yooyu yëpp xamoo ndax yàlla boole na ko ca am déet te it xamoo ndax bu ko ca yàlla boolee ca ñam koy defal ña nga bokk ca nga bokkam déet kooku benn la ñaareel bi nga xamante ne moo tax mu nekk aw nax mooy moom milane boo tënkoo ci sama ngéer wala nga topp saaw yoon wala nga topp liggéeyal ma wala nga topp sama njaboot danaa la ramu am na ñu ko gën muy saxaaba yi yar woon ci kat keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te musuñoo wax loolu doomu aadama taabi'uuna yi yaroo ci keppaaru saaba yi musuñu koo wax kenn ci saaba yi wala saaba yit it musuñu koo wax dig kenn ci taabi'uuna yi ne maa lay ramm boo ma defalee nangam wala boo tënkoo ci yoon sàngam bal saaba musuñu wax kenn sax ne ko bo saxé ci lu bax cheikh lu bon man dama lay ram saaba musuñu wax lolu kon saaba ñom musuñu musuñoo dig kenn ramm waaye nuñ daan def moy digal nit ñu lu bax tere leen lu bon comme ni mu saxé ci alcorane ak sunna ndax xam nañ ne buntu ram mom waxtane ko du fi ci aduna manam dige ko dana la ko defal duma la ko defal ca nga bok amna ndigal awmako lolu ko wi du fi ndax ëllëg yowmal qiyamala fofu la yàlla joxé ndigal la kon ca la ñuy xamee ña nga xamante ne ñoo koy def lu dul ñi nga xam ne texte tudd na leen muy yonent yi ak malaaka yi nit ñu baax ñi xamuñu kan kan moo ciy doon moo ciy euh, ràmm bu ëllëgee ndax ñun dañuy am yaakaar ci ne kii ku baax la waaye ndax dana bokk ci ñiy ràmm bu ëllëgee xamuñu kon moom mu baax sañu te ñëw ne man dama lay ràmm sañu koo digee waaye yow it sañoo ñëw ne ko yow man kat wékku naa ci yow bu ëllëgee yaa may ràmm ndax xamoo ndax ci yow ci ñi ñuy ramm nga bokk te moom it xamul ndax ci ñi ñuy dox ndigal ngir ñu ramm lay bokkam déet kon muy bunt boo xam ne nii lañ ko war a gëmee kon am na ñoo xam ne nax nañ leen ci nax yu dem ba toll ne danañ dab ndi ndigalal ak ngërëmu ki leen di ramm donte dañuy wàcc xotti ndigalal yàlla akub yonentam xër ga ñuy am ca topp kookaak dab ndigalam ak dab ngërëmam duñ ko am ci topp yàllaa yàlla akub yonantam te kooka bu leen digalee loo xam ne texte wér na xotti ko ci alxuraan ak sunna ñu topp kooka bàyyi alxuraan ak sunna ngir lan ngir ne nax nañ leen ñu gëm ne kooku rek moo leen mën a musal bu ëllëgee ngir ràmm leen. kon loolu dafa nekk bunt boo xam ne bari na ñoo xam ne tarxiis nañ ci ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu euh, musal ñu ci lu mel noonu kon daal bunt la boo xamante ne waxtaan ci lu yaatu lay doon euh, am na ay façon ramm yoo xam ne dana am yëpp ëllëg yowmal qiyaama la lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko am na yoo xam ne boroom xam-xam yi booloo nañ ci am na yoo xam ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci ci façon ramm yi am waaye shafaatul kubra ga nga xam ne mooy ramm gu magga goo ko yonent bi la ko yàlla jagleel mooy almaqaamul mahmud naka noonu ramm gi nga xam ne moom lay ramm nit ñi ngir ñu dugg aljanna moom la ko yàlla jagleel naka noonu ramm gi muy ramm baayam abu taalib nga xam ne dafa faatuwaale bokkaale yàlla faatu faatu nekkul ab julit ba pare yàlla ramm ko mu nekk exception ñu setti ko ci eh, ñi nga xam ne laa tanfaahum shafaatu shafiin maanaam ñi nga xam ne yéefar yi nga xam ne ramm du leen jariñ dala Abu Talib moom dañ ko cee génnee waaye génnee goo xam ne daanaka yàlla ñu ci yàlla musal mooy dañoo wayefal mbugal ma mu sol ay dàll wala mu nekk ci tepp-tepp ca sawara boo xam ne yuur ga da cay bax te day jàpp ne moo gën a metti mbugal kon loolu exception la boo xam ne eh, yonent bi sallallahu alayhi moo ko jagoo ci Euh, papam Abu Talib nga gis ne kon ñetti yooyu ñu tudd yëpp boroom xam-xam yi euh, dëppoo nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko jagoo kon ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko amma euh, ramm gi nga xam ne mooy ramm ay nit yoo xam ne dañoo naroon a dugg sawara ñu bañ faa dugg kooku yonent bi dana ko def waaye nit ñu baax ñeek malaaka yi danañ ko def Euh, naka noonu rammu ay nit yoo xam ne dañoo dugg sawara ngir seen i bàkkaar waaye wéetal yàlla lañ deewaale ñu rammu leen ñu génn sawara dem dugg aljanna loolu yonentu dana ko def waaye nit ñu baax ñi danañ ko def naka noonu malaaka yi et cetera. Euh, am na ramm yoo xam ne dañ cee wuute mooy ramm ñi nga xam ne ñoo dugg aljanna ngir yëkkati seeni i daraja kooku borom xam-xam yi dañ cee wute kon loolu lenn la ci ay façon ramu yoo xamante ne euh, ëllëg yowmal qiyaama lay xew kon lépp ramm ëllëg yowmal lay xewee. ci ñi nga xamantene yalla da leen di teral euh, ginnaw ba mu leen gërëmee gërëm seeni jëf ñu nekk ay nit ñu bax euh, jox leen ndigal ngir ñu ram ñenn ci ñi nga xam ne yayoo nañ ñu ram leen te moy ñu yalla gërëm ñu deewaale euh, wéetal yàlla lu dul kuñ ci génné sété ko ci comme niñ ko waxé yoy yépp ëlëk yowmal qiyam lay xew kon bu kenn né man ci ñi ram la na bu kenn né man diwa may ram te amo texte buy tukkee ci alcorane ak sunna buy wane ne ci la bok ñepp nañ and jaamu yalla fexeel ba bu ëllëgee yowmal qiyaama nga egg ci mbaax foo xam ne yàlla dana la jox ndigal ngir nga rammoo waaye bul xaar mukk ñu nar la rammu ndax kiñ nar a rammu moom xamal ne am na lu manqué le lu rëy léegi nag fexeel ba say mbir mat ba bu ëllëgee yowmal qiyaama benn nga dugg aljanna ci sa jëf wala yàlla boole la sax ci ñi war a rammu nga rammu ay nit yu ko yeyoo ànd ak nga dugg aljanna loolu day yaakaar naa ni mooy li nga xam ne moom la ab julit war a xinte ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko asalaamaaleykum